الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا يخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنحل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان صدق الله العظيم صدق الله العظيم mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi di sant yàlla julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu mbokk téléspectateur u Thiénaba TV nuyooyu ñu ci jiital xalif général Baye Serigne Assane Seck di ko ñaanal yàlla na yàlla yàggal ko suñu kanam te wéral ko ak lépp lu mu jaboote euh, jaar ci moom rek euh, jël nuyoo xalif généro yi nekk ci réew mi ak kilifa aada yi teg ko ci loxoom waaye dañuy wàccaat fii ci Canaba euh, nuyu jabootam imaamu ratib bu Canaba Baye Serigne Cheikhou Amadou di ko nuyu di ànd ak moom rek nuyu imaam yi nga xam ne ñoom la àndal ci grande mosquée bu Canaba ak jàkka yi nekk biir Canaba wala ñu nekk biir Canaba yëpp ñu nuyu leen jaara leen nuyu Serigne Alsane ñaana Seck chef village ak yi mu àndal ci liggéey bi candidat yi nga xam ni tey ñu ngi nekk ci commune bi seetaan yooyu yëpp nag ñu jël rek wàññee ko xalifa maam Birane euh, di am mbégte nag teew fii nga xamee ni euh, mooy euh, daara baabu salaam bu Thiénaba ñu ñëwoon fi tey di waajal bis bu màgg muy bis ban muy bisu journée coranique Euh, muy bisu alxuraanul karim bi nga xamee ni euh, macha allah euh, ñu ngi koy waajal fii ci daara ji waaye ànd ko ak direction daara ji ànd ko ji mooy oustaz Mam Bokar Cissé mën nañoo wax oustaz Mam Bokar Cissé daara yi oustaz Mam Bokar taxawu conférence yi waaye mën nañoo wax oustaz Mam Bokar Kanabu TV ànd ko ci liggéey liggéey boo xam ne liggéey bu am am solo la Oustaz Mame boobu mooy waajal nag bis bu màgg euh, samedi lay nekk le 18 mai 2024 euh, moo tax ñu ñëw fii ci daara ji ñëw nag ànd ko wara nag euh, waxtaane daara ji macha allah yëkkati woote bu yaatu nag jëmale ko ci journée boobu ñu wax ni journée coranique la muy journée bisu alquranul karim waaye bis la tamit boo xam ni dinañ ci teg xeer extension daara ji muy daara ji dañ koy yaatal moom baabu salaam ci wetam malaaka dina ñëw bu boobaa teg xeer wi yàlla bu ko defee rek ñaan yàlla na yàlla soppe lépp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa ñu séq war a séq moom nag waxtaan waxtaan woo xam ni nga ñu toppee euh, commencement bi ba ca fin ba lépp lu ngeen ci war a xam jëmee ko ci bis boobu wala jëmee ko ci daara ji incha allah euh, di ngeen ko xam kon oustaz ñu ngi lay nuyu euh, di la ziyaara xam naa di jaajëfal nag suñu ndongo daara bi nga xam ne moom moo ñu ubbil muy Serigne Saliou Faye moom alhamdu bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa bikum min niamatin fa min allah kii muy seetaan TV ci àdduna bépp ñu ngi leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kii sof sama nuyoo ci sab nuyoo Serigne Jàmme Gueye nuyoo euh, jiital ci nuyoo ba xalifa généralu Thiénaba bàyyi Serigne Alxasan Seck ak njabootu maam Ahmadou Ndack Seck yëpp teg ca Serigne Cheikhou Amadou ak euh, imaam yi nekk ci jumaay Canaba waaye wàcc it euh, ba ci nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu état le maire El Hadj ak di euh, femme waaye wàcc ba ci ëttu Cissé muy sëriñ Andal Cissé xalifa maam Birane ak suñu wayjur suñu mag Serigne Ousseynou Cissé ak ñi nga xam ni mooy Serigne daara yi nga xam ne ñoo nag ñoom ñoo seq liggéey bi waaye particulièrement di nuyu bépp membre bu bokk ci daara ji euh, waaye tamit bépp membre boo nga xamee ni bokk na ci daaray Babou Salam euh, alhamdulilah ànd ci ak samay soxna nuyu leen soxna Xadijatu Sekk ak soxna Xadijatu Sise nga xam ne ñoom laa seqal liggéey bi waaye tamit di nuyu particulièrement Thiénaba TV euh, jiital ci ki nga xam ni moo nekk ci bopp bi directeur Alfahim Sarr waaye Serigne Jammé yoo tamit nga xam ni suñu partenaire yàgg na lool Euh, di la nuyu ak équipe bi nga àndal sëñ Modou Fall ak ñëpp rek fas yéene nag déglu leen ci question yi ngeen ñuy laaj lu jëm ci daaray Babou Salam bu Canaba euh, daaray Babou Salam bu Canaba ñi ngi ko duppee tuddee ko daara ja ñu jóge muy daaray Oustaz Ibrahima Sarr doomu sëriñ maam ñàkkur Sarr ak soxna Gay Sarr euh, nga xam ni daaray Babou Salam ju nekk Canaba Dakar la Pikine di ko taaf ñu fande ko 1962 yàlla dogal ñun ñu dem fa 1986 jóge fa 2006 maanaam def nañ fa ñaar fukki at ñu foro ci xam-xam lu ci fa lañ ko jëlee moo tax bañ fa jógee yàlla dogal ñu ñibbisi en tant que ñu affecté ñu ñu jàngale ji Saint-Louis Ndar foofu la njëkk amee idée bi xalaat bi ni daal bu yàlla dogalee ñu jógee ci Ndar gi danañu dellu bu ñu delloo Thiénaba rek danañ samp daara comme ni ñu ko euh, suñu sëriñ Oussa Ibrahima Sarr sante woon moo tax en mille 2014 bi ñu affecte ñu jóge ndar ñëw fii affecté ñu sembu aaneen wala dogal ñu dema dem di ci xalaat di ci liggéey euh, ba mille mille 2002 2022 bi passé dañ ko sos waaye la jiitu loolu euh, mille 2007 dañ doon def bu ñu musaani ñëw vacances rek dajale arabisants yi ak ndongo yi yenn élèves yi nga xam ne day ñëw vacances di leen jàngal moo tax bërëb bi maanaam nekk na fi jàngale nañ fi ay majalis ndànk-ndànk boobu amaguñ fi dara waaye ab pàkku kese la saa yu vacances jotee rek ñu daje fi defar sunu mbaar di jàng di jàngal ndongo yi xam-xam ba yàlla dogal 2022 nag ci la doog a daara ji nag daal di koy yaatal alhamdulilah ki ñu tegal xeer wi euh, inaugural ñu ko mooy bàyyi sëriñ alxasan Seck moo ñu njëkk a inaugural daara ji ci mille 2022 yàlla dogal daaw la ko inauguré sax ci 2020 2022 euh, bi ci la ko inauguré Euh, alhamdulilah ak ay mbokk yoo xam ne ñoo ñu jàppale ba ñu am ñaari alaqaam moo tax ci njàmme ci wàllu historique daara ji Baye Assane njëkk a euh, inauguré ci Canaba mooy daara ji Babou Salam Canaba barke bi it daal di sotteekuwaat ba bi alhamdulilah bi bi ñu ñëwee ci 2024 bi yàlla dogal ñu am beneen pàkk ginnaaw bi ñu gisee ni daara ji xat na ñu jënd pàkk bi mu jàkkaar lool daal di koy jënd nag daara jooju nag foofu nag lañ bëgg a yaatale liggéeyu daara bi moo tax fii tudd daara Babou Salam fële baabu Salam extension lañu ko kii année boobu lañ ko sos macha allah lu amam solo kon xam naa euh, kii seetaan rek euh, euh, historique bi gàtt na waaye gudd na mooy ñun ndey macha ci daara la ñu juddoo waaye ñu yóbbu woon teg ñu loxo ci loxol Oustaz Ibrahima Sarr ma nga xam ni moo ubbi woon daara Abou Salaam ca Pikine nekk daara joo xam ni tey ñu fa génne euh, te nekk ay kilifa fii ci cana ba bari na euh, macha allah waaye lam ñu joxoñoon rek mooy euh, jàng dem ubbi daara jàngale ci loolu la ñu nekk moo waral bala ñoo ubbi officiellement li nga xam ne mooy daara ji en 2022 fekk na ñu fi doon jàngale façon jàngale bu nekk comme ni ko oustaz Maam Bokor waxee daara jooju nag ñu wax leen baabu Salaam bu cana ba sec tey moom mooy waajal bis bu màgg muy bisu alxuraanul karim Euh, ñu war koo def samedi le 18 mai 2024 euh, fii ci barab bi ci daara ji waaye ci biir journée boobu oustaz euh, journée boobu rek nga ñuy ñëwal nga ñuy ñëwal lan lan lañ lan moo ci làmb muy jour journée bisu alxuraanul karim yaakaar naa ni ku nekk ak ay ndonga daara atum lëmm ba ba ba wala bër a jot laaj na nag nga dajale parents d'élèves yi dajale mbokk yi dajale xarit yi feetal gone yi bu ko defee mu nekk bisu alxuraanul karim yaakaar naa loolu la ñuy woote Euh, samedi le 18 mai 2024 waaye ci biir woote boobu tamit am na leneen loo xam ne dañ ko ci làmb euh, muy wàllu euh, def pose première pierre bi muy tegu xeeru njëkk wi ci extension bi nga xamee ni mooy baabu salaam yaakaar naa ni loolu ci ngi ñuy dëkkal rek d'une manière globale bu ko defee ñu mën cee waxtaan. barakallah jërëjëf Serigne Ndiame gërëmaat bis bi nga xam ni fas yéene nañ ko woote yàlla dogal defal dogal daaw. comme ni nga ko waxee rek bu buñ jàngalee ba école tëj wala ba daara ji war a bër tabaski dañuy defal xale yi benn biir daara ji sax lañ ko defoon daal génn ñu woon dañoo woo parents yi rek dajale fi élèves yëpp ci biir daara ji lañ defoon benn feet daal neexal xale yi ñu daal di waaye ren bi waxtaan ni di parents d'élèves yi waxtaan ak bureau bi ñu gis ni daal euh, comme yàlla wërsëgal nañu bërëb bu bees ca pàkkub kese la dara nekkagu fa ca fas yéene nañ fa fas yéene nañ ko yokke daara ji parents ni bu ñu sañoon génne ko ci liggéey bi ca biti moo tax ren ci wetu pàkk bu bees bi ñu jënd fa ñuy génn seeni faa def euh, cérémonie bi nga xam ne moom la ñu def boobu nag Serigne jàmme illa ji li ko tax a jóg lenn la mooy euh, jéem a fàggu ci suñu am-am ak am-amu jullit ñi yëkkati bërëb boobu looloo tax looloo ko tax a génn waaye bu loolu amuloon daanaka mën nañuy des lépp di ko defee ci biir waaye daal li ñu bëgg mooy bërëb boobu incha allahu taala lu ñu jot a dajale lu ñu jot a am suñuy dërëm ak dërëmu parent yi ak mbo ak jaami yàlla yi ñu seet lu ñu sotti foofu ngir yëkkati daara jooju incha allah ñu jàpp ko nag samedi bii di ñëw bi ci topp maanaam samedi le 18 mai 2024 mu nekk programme boo xam ne nag euh, incha allahu taala seen jaami du gudd ndax dañoo bëgg mu tàmbali 10 heures daal di jeex plus tard 13 heures 10 heures plus tard mu jeex 13 amaana sax duñ fa àgg waaye nag ci contenu bi euh, maanaam ci biir lu ñu bëgg a dugal ci biir mooy euh, ndongo yi barkeelu ci alquranul karim bu ñu paree ci loolu ku ñuy wax Cheikh Khadim Ndiaye Rasid nga xam ne dëkk na Touba la dëkk ci ñu baree xam ko muy sëriñub daara di jàngalekatu alquran di mën a def ci nit lu baree bare ci njàngalem alquran am la ñu taamu ren mu ñëw incha allah nekk suñu gan bu ñëwee dina wax ci dawrul quran fi islahil fard alquranu karim euh, wan yoon lay jaar ba tabax nit ki def ko muy nekk ki gën loolu mooy thème bi alquranul karim wan yoon lay jaar ba tabax nit ki def ko mu nekk ku gën moom incha allah moom mooy ñëw ci thème boobu bu ñu paree rek dañuy daal di génne quelque kàddu lu mat ñetti kàddu ci kilifa yi jox leen ko incha allah bu ñu paree ànd ak xarifa bi daal di dem ca bërëb ba nag ndax ñaari bërëb ñoo taqaloo daal di dem nag tegal ñu xeer wi dañ fa demee waxtaan ceeg moom mu jox ci ñu digal ni daara ji daaw maa yebaloon sama njaboot ñu inaugurer ma daara ju njëkk ji waaye ren xeer wi man maa ko bëgg a teg si euh, ci ndigalam lañ ko amee ñu ngi ko ci xaar di ñaan yàlla bis baa yàlla na ko may mu fekk ba mën a ñëw tegal ñu xeer wi comme ni ñu defale woon macha allah mu nekk lu am am solo kon euh, dégg ngeen euh, bisu alxuraanul karim bi ma fàttali leen ni samedi lay nekk le 18 mai 2024 macha allah fii ci euh, daara ji euh, ñu ci euh, ñu ñu ciy teg xeer wi xeeru extension daara ji dégg ngeen oustaz Mame wax na ko alifa bi ci boppam joxe ni ci ndigal waaye jiital na ay ñaan waaye boppam mu am yéene ñëw ànd ak ñëw rek xeer wu njëkk wi di daara extension bi ginnaaw bi nga xamee ni ci at yee passé moom moo inauguré woon daara ji nga xam ni moom moo nekk ñu toog Euh, mu nekk liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la ñu koy ñaanal yàlla na yàlla jël fanam te wéral ko moom Baye Serigne Assane Seck ak euh, mbooleem jullit yëpp yàlla yàlla def ko xam naa kon li ma ko waxee woon léegi rek dañuy déglu euh, soxna Maguette Seye macha allah mu jàngal ñu alquranul karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة walkaafiruuna humu zaalimuun allahu laa ilaaha illaa huwa alhayyul qayyuum laa ta'xuzuhu sinatun walaa nawm lahu maa fi samaawaati wa maa fil ard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 jàngal alquranul karim kon xam naa li ñuy dugg rek euh, mooy dem directement ci li nga xam ni moom mooy woote ci bis bi Oustaz Mame Bocar dañ lay jox kàddu gi bu ko defee nga dugal ab woote euh, booy ñi ngi ko bëgg a bokkal euh, bu ñu paree rek xam naa la cay des mooy nag yëkkati bi tàggatoo ginnaaw bi nga xamee ni wax nañ programme bi bu defee rek ñu daal di nag joxante rendez bu ca bis ba yàlla na ci yàlla yóbbu jàmm ci barke Seydina ñu ngi woote ci turu direction daara ji waaye di woote ci turu parents d'élèves waaye di woote ci turu soxna yi nga xam ne ñoom laa seqal liggéey bi euh, nga xamee ni su wootee ñoom woote nañu maanaam tàmm ñu jàkkaarloog télé ak yu mel noonu wax ñu ni naa leen far yóbbaale géew waaye ñi ngi woo ñëpp ci bis bi nga xamee ni bisub wut yiw la ndax bisub lenn la mooy dañuy tabax daara ju bees yokke ko daara ji fi nekkoon ca yonent bi sala sallam nee na ku tabaxal yàlla fu ñuy jaamoo yàlla wala fu ñuy nandale jaamu yàlla yi wala foo xamee ni dañ fay sàkkoo xam-xam képp ku ci def sa dërëm ba yomal qiyaam yàlla da lay fay moo tax illa ji mooy yëkkati loo xamee ni jaamu yàlla yëpp dañ cey dugal seen loxo ndax ëllëg mu mën a nekk ab sarax bu leen di fekk fu ñu mënti doon ci àdduna wala àlla jàmme ñi ngi ci woo euh, kilifa yi réew mi yëpp njiitu réew mi moo ci jiitu monsieur le président de la république euh, Bassirou Diomaye Diakhar fay ak gouvernement bi yëpp ndax su ko fi sous préfet nekkale monsieur le maire nekkal ko fi moom moo fi nekk dem nañ ci ñoom ñëpp alhamdulilah waaye tamit du nuyu Baye xalifa bi noonu la ñuy woowee tamit xalifa généraux yi ci ci réew mi yëpp Baye Alxasan moom mooy borom woote bi ndax nee na yow laa yebal yaa ma fa nekkal kon woote bi woote Baye Assane la ci la ñu wax xalifa généraux yëpp ak kilifay diine ci àdduna bi waaye tamit di woo seriñ daara yi jàngalekatu alquranul karim yi bu dee ci rabita bi nekk Canaba sëriñ Dame Khoule moo ko jiite ak ñi mu àndal ci liggéey bi waaye tamit eh, di woo particulièrement famille Mame Birane Cissé nga xam ne yàlla dogal na fa ñu bokk yow sëriñ àndala nekk ca bopp sëriñ Ousseynou di suñu kilifa wala jur moom tamit eh, njaboot gi yëpp ñu ngi leen di wooteel waaye tamit di woo regroupement yi nekk biir Canaba dox na yu baax yi nga xam ne ñu ngi yëngatu ak góor ñi waaye tamit di woo mouvement sportif yi nga xam ni ci wàllu tàggat yaram ña nga ca waaye di woo média yi média yi bu fekkee woo nañ la Serigne Jammeh ci turu Thiénaba TV woo tamit euh, suñuy wëllëre waa ko FM nga xam ne ñaari secteurs yooyu ñun fa la ñuy liggéeyee wàllu média euh, di ngeen ñu mën a woowaaleel ñëpp ndax loolu sa boote la waaye tamit di woo képp koo xam ni yaa ngi liggéey wala ngay jàngale suñu moroom professeur yi rawatina sem bi may jàngale muy sem aaneen ñu ngi leen di woo suñu professeurs yi monsieur le principal Idrissa Konaté ak ñamu personnel bi yëpp di woo tamit eh, eh, lycée bu Thiénaba ñëpp rek di woo tamit ñëpp ñoo xamee ne rek ñu ngi ci biir dëkk bi ak liko ko wër Thiénaba ak li ko wër bu doon lim yaa may gën a xam dëkk yi bu ma nee Thiénaba ak li ko wër rek woo waa réew mi woo naa ñëpp kon daal loolu Serigne Ndiamé ci tënk mooy woote bi di woo mbokk jullit yëpp di woo particulièrement it eh, waa jamiyatul ber wal ihsan nga xam ni mouvement la boo xamee ni dañ yëngatu ci wàllu daaw woote jëme ci yàlla imam Mamour Mbengue nekk ca bopp ba ca yàlla dogal ñu yor jëm ci communication bi ñoom tamit ñu ngi leen di woo bàyyiwun kenn daal woote la boo xam ne àdduna bépp suñu leen woowe woo képp koy wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñu ngi leen di woo samedi biir ñëw bi topp le 18 mai 10 heures ba 13 heures incha allahu taala kon ginnaaw loolu ñu ngi tàggu ñëpp euh, di leen jox rendez-vous bis boobu la bisub àdduna la ñu ngi ci woo mbokk jullit yëpp incha allah ndax diggante bi du gudd 10 heures la ba 13 heures gën ngaa bari incha allah bu ñu paree euh, lu fi rot ci rek ci ay gan incha yàlla dogale bu mbir ma jeexee ñu ñoom kafuree waxtaan kon loolu daal mooy woote bi di wax eh, yàlla yàlla may ñu fekke ko ci jàmm ak salaam day wax salaamaaleykum Mame Bocar Cissé euh, macha allah waxtaan wi am na solo euh, kon mbokku téléspectateur bi ak internet bi ñuy seetaan euh, dégg ngeen ko ca commencement ba ginnaaw bi nga xamee ni déglu nañu sox sëriñ Saliou fay mu jàngal ñu alxuraanul karim oustaz Mame Bokar ñëw na ci historique euh, gu euh, Babou Salam euh, naka lañ ko sose ak lan moo waral tur wi jaar-jaar yi ak niñ ko sose fii ci biir Thiénaba mu nekk lu amam solo waaye bis bi nga xamee ni bisu alxuraanul karim la ñu war ko def fii ci daara ji samedi le 18 mai 2024 moom ñëw na ci programme bi kon 10 heures incha allah ci la programme bi di commencé diggante 10 heures ba 11 heures et demi ci la njàngum alxuraanu mi alxuraan mi waaye bu ñu demee ba 11 h jàpp midi écart euh, euh, conférence bu mag dina fi am euh, macha allah bu ñu jógee ci conférence bi nag ci la ñu war a jëm ci kàddu yi ginnaaw loolu nag ñu dem nag teg xeer wi nga xamee ni moom mooy pose première pierre extension daara ji ci ndigalal kilifa yi ak ci njiital kilifa yi macha allah mu nekk lu amaam solo ginnaaw loolu tamit déglu nañu soxna Maguette Sey mu jàngal ñu alxuraan joxaat kàddu gi Oustaz Mame Bocar Cissé moom tamit mu ñëwaat ak ñun ci woote boo xam ne woote bu yaatu la woo kilifa yi woo dëkkandoo yi waaye woo xarit yi woo ñi nga xam ne ñoom la seqal daara ji wala mu seq ñoom ay dëkk bi waaye euh, mu ngi tamit yaatal woote bi rek dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo wër Thiénaba euh, dëkk Kër Maysa Njaake te sorewuñu euh, xay tamit moom sorewuñu ak Thiénaba gaar dem ba Cawaare kër Bandañang dem ba kër Mamour kër Magay Ndaw macha allah ak Touba Gueye kër Ibra Niane dem ba aaneen gi nga xam ni foofu lay jàngale ak dëkk yi nga xam ne daal ñoo nekk ci commune Thiénaba yëpp bàyyiwul kenn waaye woona eh, ñi nga xam ne tam ñooy autorité administrative yi nga xam ne ñoo nekk biir Thiénaba teg ci eh, teg ko ci loxol monsieur le sous-préfet eh, monsieur Babacar wàdd ak ñi mu àndal ci liggéey bi son adjoint Mamadou Sy mu jàllaleel ñu woote bi rek ba ci jaar ci préfet gouverneur ministre de wala sax dem ba ci son excellence le président euh, Bassirou Diomaye Faye euh, macha ak ñi mu bokkal euh, liggéey bi yëpp macha allah kon bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu ku dëkk ci biir dëkk bi wala sax nga dëkk ci bitib dëkk bi ñu ngi lay woo ci bisub alxuraanul karim macha allah di jaajëfal nag soxna yi nga xam ni ñoom la seqal daara ji wax na ko muy soxna Khady Seck ak soxna Khady Cissé macha allah jël jaajëf yooyu teg ko ci loxol waajuram suñu yaay soxna Khady Seck moom tamit. toog ci suñu wet euh, di ko ñaanal rek yàlla na gudd fan tu wér euh, ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi waaye parents d'élèves yi euh, ak ñi nga xam ne ñoom la seqal daara ji tey bis bi moo xat looloo tax ñoom ñëwuñu teew ci woote bi waaye ñu toog fi rek wooteel leen def ko à beneen manière beneen façon boo xam ne façon woote la sous forme plateau woote wala spécial woote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 bokk ji ñoo ngi leen ziar soxna sa tànqadi maam bokkar ak maam bokkar si ñuy jàngal fii xam-xam ak ani karim waaw ñoo ngi leen nuyu yéen ñëpp ñoo ngi leen ziar leen woo si bis bi samedi bi ñëw bu del si

Wow, mantap. Mau main foto. Malu enggak? Main nyebe? Main lembu, main lembu, main lembu. Main lembu, main lembu. Kalau cinan. Karet. Karet. Ya, ya. Baik, ya. Ya, ya.